jullit yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal nu yàlla boole jëggal di fàttalante ak sunu mbokki jullit yépp e, tomb boo xam ne daa xew ci jamono jërut ñu naan nii la demee ak naa ndax wolof day lépp ne nii laa defoon am na lu muy yokk day delloosiwaat xel yi xol yi di ko gën a naqar lu muy gën di metti waaye bu am li am su amee ba noppi euh, mën naa am ñi ko mën a faj man koo saafara ña ca naa am waaye ñi nga xam ne nag dalagu leen te yàlla ba mu dalati kenn loolu moo gët a gën a mat a waxtaane suñu ci indee ab tomb nag dañu koy sukkandiku ci sukkandikuwaay yi gën a leer ci ab jullit muy alxuraan wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax bu dee fii nga xam ne ci ñoom la xew it ñoo leen Sëriñ bind na nangam mu ne wét ab yaat yi ma doon jàng bayit yi ma doon jàng léegi mi ngi nekk ci téere boo xam ne sëñ bu mag bi moo ko bind bu fekkee am nañu ko mas a it ñu néew la te moo ne ak a yàgg ni moroomam yi yàgg téere bi mi ngi tudd jaalibatul buruur jaalibatul buruur wa daafiatul guruur ana lu ko sëriñ ba tënk ab dénkaan te dénkaane lu tiis la bokk yi ñàkk a fonkal nit ab dénkaaneem mën naa topp kam ko dénk ba mu layoog moom ba yay ko ci ëllëg dem cib safaan kutiba aleykum ida xadara axadakum almawtu in taraka xayran alwasiya alwasiyatu lilwalidayn wal aqrabin bilmaarufi xaqan ala almuttaqin faman baddalahu baadama samicahu fa innama ismuhu ala alladina yubaddilunahu inna allaha samiun alim fa man xaafa min muusin janafan aw isman fa aslaxa baynahum fala isma aley inna allaha gafurun rahim mooy képp koo xam ne daa dox ba ne gegg ci dénkaaneeb ñooñu alxuraan tudd nga xam ne nit ki daal dem na ba rafetatul njortu ci boppam mu woo ña fa gën a jege ne leen daa bëgg bu fi bàyyi ko ñu sàmmal ko lii doxaleel ko mbir mi nii yanoo ko nii wàccee ko nii nee nag euh, dénkaat loolee comme ne toq ci sa nopp wala nga teg ci sa bët muy mbind boo amee dara lu la boole kooka rek ca nga yaag ña ko fekke woon yéen a ci yem kepp nee na nag ku ci teg bëtam teg ci tànkam teg ci bëtam ak dégg ko ci noppam ba noppi teg ci tànkam raatale bëgg mu far limale nañ ko ca ña nga xam ne bu ëllëgee kii dénkaane woon dana layoog ñoom te dana leen yay te foofa ku ñu fa yay ku ne xam na fa mu jëm ku yay xamees na fa mu jëm waaye ku ñu fa yay xam na fa mu jëm nee nag balaa looloo am ku gis ne ndénkaan lay ngi bëgg a saay na wax su fajoo baax na su fajuwut jaanam wàcc euh, jalibatul burur boobu wa daafiatul xuruur lu yomb mokkal la nit ñaa ngi mokkal lu ko gën a gudd fuuf ndax juróom-benn fukki bayit la ak ñett rek sëriñ bi tënk na ci ñetti tomb yoo xam ne amul kenn ku koy tuddoo te mën caa ñàkk benn ndax bu njëkk bi ginnaaw bu muqaddame bi jàllee ñetti bunt rek la ko def benn bi ma ngi cee waxtaane ngëneeli xam-xam bi ma tàmbalee junj léegi ak kuy wut xam-xam te bëgg koo am nu muy def ba am ko ak fu muy wuti fu mu koy wute ji ba ca tool ba ca topp mooy baat yi ñuy waxantoo ku ne naan am na ngërëmul yàlla wala àgg na ci yàlla wala ñu di ko jiñ nit mu ne cel waaye ba ko ñetteel mooy nu ñuy def ba am makaarimul axlaaq lu yomb mokkal la te it wayin wi mu ko woy ak baat yi mu ci jëfandikoo ku ne mën na koo dégg doon doone mukk lu ci jublu ndax dafa leer nañ gannaaw nag ni nga noonu la deme te ñi ëpp ci ñim dénk daa jaayanteeg ñoom dañoo jaayanteeg moom koo ne sa jaayante wérut mu mu xoole la ko bu dee ku ko sañ mën naa jël sax dara jëme ko ci yow ndax mer yàlla nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi jaayanteeg yow yàlla lañ jaayanteel sa loxo lii nga tàllal ñu teg ci nañ ko jàppe yàlla lañ teg ci loxoom ndax moo la yónni te nee na doo jëfe sa bakkat ku ko ci def nangul ko waaye su demee ba xàcc ber yoonu boppam boppam moo xam waaye bañ a xàcc nag moo gën fuuf inna alladina yubaayicuunaka innama yubaayicuuna allah yadullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada allahi alayhi fa sa nutihi ajran azima moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon euh, samaw xeet fii ba àddunay tukki ci jàmm rek la ñuy nekk ñu ne ah alhamdulilah rabbil alamin mu ne li mag ñi ñi ñu tudd ay mag te mag moom ci njàngaleem sëriñ bi du ay at du ay at kese ndax ne dem leen dem leen ne mas naa wax ne dem leen wol ma Moussa mu mag ma ñu dem indi Moussa mi mag fuuf sëñ Moussa Elima Gueye la doon ñu dem indi Moussa mu mag ma mu ne waxuma mii ñu dem andi sëñ Moussa Alima Gueye te ko xaw ko magoon foofu mu ne kii laay wax ndax kii la alxuraan nekk ci dënnam kii moo mag ndax moom la alxuraan nekk ci dënnam moom la waxi mag nekk ci ab dënnam moo tax mu ne xeet yépp ci jàmm lañuy nekk li feeg mag ñi ñi nga jox cër ndaw ñi mag muy jox cër ndaw mooy yërëm ko amal ko yërmande yërmande ji mooy saa su ko gisee muy dugg ci lu mu war a dugg mu génne ko ca bokk na ca fu mu seen njariñ mu joxañ ko fa te jiitu nag mu topp ci moom kaay ñu dem duna ko demal kese yam ca ndax gone lu ko tarfatal do ay yomb waaye benn ñaareel ba mooy li feek ndaw mi ngi jox cër mag ginnaaw xamees na mag kum doon xamees na ndaw ku muy doon waaye jox jox gi mag di jox cër ndaw mag ndaw di jox cër mag cër bu ca gën a yéy nga xam ne su ko defee yi ci des dana yomb ci moom moo jox yàlla cër ba noppi jox yàlla cëram jox yàlla cëram teg ko fa mu ko war a teg bañ ko booleeg dara bañ ko booleek kenn bañ ko booleek lenn bàyyi ko fa mu ne fa mu ko fekk rek ndax bokk na ci ak maandu lu ci nekk loo fekk mu nee fa te xamul ku ko fa teg nga maandu ca laa tazaalu ummati bi xayrin ma daama kabiruha yarxamu sagiraha wa sagiruha yuwaqiru kabiraha dal ne nag bokkut ci xeet wi nañ ko ci génne xeet woo gis joxante wuñ mag joxut ndaw cër ndaw joxut mag cër digle amatut tere amatut nee na fu ngeen ko ñoo cay limale seen bopp waaye yonent bi nee na bokkutuñ ci moom laysa minna man lam yuwaqir alkabira wa yarxam alsagira wa yaamuru bilmaarufi wa yanha anil kon fitna ji nga xam ne moo yor jamono ji ba ba koo dugal ci pax mu dul mën a génn ba ku nekk di wax lu nekk ku ne di def lu ne ba yi nga xam ne mooy aqdasul muqaddasaat yi nit ñaa ngi koy sonk di ca wax lu kenn mënta dégg ba di ko ci jëfandikoo wuti xam-xam bu leer jot na sëkk loolu rek moo ci mën a génn nit ndax suñ ko wuti wut xam-xam lu danaan gàññ ma foog ne ma jàpp ne ma gis ne loolu fu muy mujj mooy ku nekk jaar ci aw yoonam te loola mënut loolu lépp mënut a maas tudd ay yoon ay ñal lay mën a tudd ñal la ma mën a bari ci àll bi waaye bari na ci ñal la yoo xam ne nag ci ak dédd lay dugg dédd mooy kan mooy déem yu mag yooyu gaynde daan làqatu bu bëccëgee dafa nelawe bukki dafa dafa raweej nit ku dox ba ne fa yomb la ko fa mën a génn yàlla rek ko xam xanaa mag ñi daan ci joxe misaal ci bu ñu demee ba jub foo xam ni fii dëpp rek ka ca war a am daanañ ko misaal ci ne am na ko doxoon ba dugg ci ak dédd dédd gi may wax nii ñu xam àll bi xam nañ ko mooy garab yu sëq yooyu bay laal soof nga xam ne noor ak nawet day ami xob déem mën na cee bokk mu serlu fa ci naaj wu tànk bi ba demam jot mu ne xool bëtam ni rek gis gaynde gu tëdd ak doomam mu xool xool xamut bunt bu mu jaaroon ba dugg fi mu wax ca kaw ña ko doon romb dégg mu ne dama fee gis lu daa gis dafaa gis lu mu ragal moom mag ñëw na leen la ko fi dugaloon donc ni ma ko fi mën a génne fitna ko fi dugaloon daa am lu ko doon topp mu dugg fi fitna donc ku fi génne taal leen dëdd gi rek ñu taal wet yépp fépp tàkk ba mu xoolee xool fépp di sawara ba muy génn faalewul dégg koy jam faalewul lu koy xotti loolu nag yàlla bu ñu fa àgg ci yoon wi ñu jaar moo tax sëriñ bi ne ku bëgg àgg ci yàlla yàlla dem sa jërut takk jërut war moo ko jàngale moom nañ cay demee mooy teg sa tànk ci ay ndigalam rek kese mu ne yow mi bëgg àgg ci yàlla jàppal ak xasida yi ñu ne koo xam ne ah boo ko mokkalee te jëfe ko day kenn dut munu munu maanaam mën nga gis say moroom waaye koo xam ne moo lay raw moom dana jafe boo ci teggiwul sa tànk daan ki ko doon way nag te di wax boppam ba mu doon kuñ xam koo xam ne doo ko laajte ji mu ne daf koo way tarbiyatan nadamaha tarbiyatan wa tarqiya liman taallaqu bihi li tasfiya ñetti jaaruwaay la bëgg nit ki jaar ca sogo doon ki aju ci moom daf koo way di ci di ci yar nit ki tarbiye ko ci tarbiya ruuxiya ak jasad ak yaram ndax jëfante nit ak nit a ngi ci waaye tarqiya ko digganteem ak boroomam waaye tas tasfiya ko ba nga xam ne koo gis rek bëgg ko bëgg koo far wan fii nag moom ku ci génn moo ci génne boppam xaaka wasiyata ya ya muridu yow murid bi sama ndénkaan lii téye ko ci say yoxo bu mu la rëcc soo ko defee taxawi bi jumlata ma turid waaye ku ko deful nag yàlla na yàlla mos ci safaan safaan ba lam njëkk a wax mooy looy def nanga xam fi nga ko teg kon balaa kenn tàmbalee jëf na dem jàngi ba xam benn mu xam fi muy teg li muy def lu mu doon ak nam koy defe ndax xam-xam kat benn rek la bu wéree ñëpp koy ñëpp koy bokkule ñëpp bokk nuñ ko xamee ñoo bokk nuñ ko dégge dégg na mën naa rawante waaye ñoo bokk nañu ko xame moom yax bi moom ñoo bokk nañu ko xamante nañu ko xame fi ne gone yu ndaw yi ne ci daara yi alxuraan yi nga xam ne ñu sax lañ jot a jàng ba weesu ko ba mokkal ko muy alxuraan dëgg dëgg dëgg ku ci bëgg a dolli dañuy taxaw ñoom xaar la duñ ko mënta weddi ndax ci la bokkam déet di ko werante waxuma la nga dolli ci dara loolu mooy dëgg noonu lay mel genn lay doon fa qaddim il ilma ala kulli amal kull kullul kull la moom fii kullul kull la kullul kull da am ak kullul baam am nay façon tudammiru kulla cheyin bi amri rabbiha fa asbaxu la tara illa masakinahum kullul baad la lépp yàqu na ba mu des benn benn kër kon jubluwut a wax lépp a yàqu waaye am na lu yàqu waaye fa qaddimal ilma ala kulli amal moom kull yooyu kullul kull la lu mu mën a doon rek na nga dem wuti xam-xam door caa jéem a jaar sàkk ida aradta an tafuusa bil amal soo bëggee loo def muy noona loo wax muy noona bala ngaa wax demal wuti xam-xam jàng ko ba xam ko bala ngaa jëf waxaale wuñ ko ndax jëf day toxal ay wax moo gën a garaaw fuuf fal ilmu yuxyi qalba man taallama xam-xam day dundal ab xol xol buy dund foo gisee boroom rek da ko xam day am ak leer gu ne ci moom goo xam ne da ngay defee ne day day leeral jëmmam ji di diwoo nangam ak nangam te déedéet foo gis rek bëgg ko waaye na yunawiru nafsa yaqiha zulama mooy nit ñi li ñuy gis ci kaw day neex a xool lool waaye yow ki sa jëmmi bopp da ngay dem ba yu bari dutoo ko sañ moom la suñ mbakkee bu su waxoon ci luñ ko nettali woon nekku nii la demee demee naa mu ne eh, waaye ndaw jaayil de buur la jaayil buur buur nag mooy ko xam lu ko neex def xamul li muy def dara waaye am na loo xam ne ku xam doo ko ñeme waaye nag xam léegi daa am ñum ne ci seen loxo ndénkaan li ñoo ñoom ñoo gën a jano waaye boo déggee yetti bayit yi rek doy naa yam sëkk xam ne sëriñ bi fii gaa yi nekk nekku fa woon nee na xam-xam ak jëfe xam-xam ci lañuy ñuy rawantee waaye rawantewuñ ci ci yàq bi laa bokk diw ko jur diw juru ko diw jur ko naka jekk ñoom ci cosaan lii ak laa déedéet suñ tubaab gëmut lool waalam bi annama tafawutul bara bindee fi fi ñu rawante ne la leer ne bil ilmi wa diin yakunu fasbira ci xam-xam bu leer naññ ak jëfe xam-xam dong ci la moroomam nit di jiitoo moroomam ñu ne moo ko raw moo ko gën wa bihima yafdulu man qad fadula laa bi tafaxurin bi qawmin fudala waxuñu nag ci askan wi la bokk wala xew yi la bokk wala meen mi la bokk loolu suñu tubaab mosu ko gëm xam-xam ak jëfe xam-xam daal di firi ayab alquran boobu yi fa ida nufixa fa suuri fala ansaaba baynahum yowma wala yatasaaluun bis bu yowmal xiyaama taxawee duñu laaj ku la jur loo defoon la lay laaj ak loo façon ban pas-pas nga amee woon ak noo ko doon defe qad qaala rabbuka fala ansaaba baynahum utlibil huda tisaaba am na kook ci mbooloo mi maamam ji jur ndeyam nga xam ne maamam ji jur ndeyam tey jigéen moo kookaa bokk ndey ak baay dañ ko ëndil Sëñ Tuubaa di ko wax fi mbokk naa ko kii la kaala nangam Sëñ Tuubaa ne ku ko mën a jur na jaamu ji yàlla ma ne ku ko mën a jur na jaamu ji yàlla ñu daal di nodd mun a ñokket bàyyi leen fa wuy ji wax na leen de ñooñu lu ñu war a def topp ca moom rek ñu wutale jàkka euh, boo demee ci xutbam bu siiw boobu nga xam ne koor yi ak tabaski ñu ngi koy jàng fépp fu am murit di jullee xutba boobu rek tegtale na ne xutba dañ koo war a wax ci li nit ñi dégg ndax at mu jot ñu jàng ko yaar yoon juróom benn weer yu nekk at mu danañ ko jàng yaar yoon daal danañ ko jàng ci korite gi jàng ko ci tabaski waaye day mel ne nit ñi xamuñu li muy wax lu mu doon suñ ko jàngee ba noppi dañuy waxaat yeneen wax yu bokkut ak xutba bi dara waaye bokk na ca la mu te wax rek maa ngi leen di dénk muy ndénkaan ba tey rek ngeen taqoo ak li leen tànnal tamit pas-pas bu wér ak jikko yu rafet wa usikum fiihi wa baadahu la wax tey ji ak bu la weesu ak li ci kanam lépp bi mulazamati maxtira lakum min al axlaaqi wal aqaid maa ngi leen di dénk ngeen taqoo ba faw di tànn li leen li ñu leen tànnal ci pas-pas lii moom la war a fas ak lii la ñu warut a fas ak jikko yoo jëflanteeg nit am na fenn fu mu wax ne <coughs> euh, daanaka jenn wax ji la rek waaye alxayru fi maxtaarahu almuxtaaru laa maa fi nufusikum taxtaaru li baax la ci gën ñu ngi ci liñ leen tànnal bu ngeen ko dee wër waaye du bu leen ko séntu mukk li ngeen tànnal seen bopp loolu fital la tudd suñu Murtala Mbàkke ci tukki yi mu daan def ca Italie Bari dëkk bu ñuy wax Bari am na ku ñu doon kañ kañ ci kanamam naa ko kii de daa topp sa ndigal yi rek ci li nga waxoon ne nañuy def nañu fexe ba nit ñi nekk benn di taxawal ay kër yi yàlla kër yàlla tax na daanaka otam bii daal liggéeyatul dara day wër rek ci loolu lay dox ba sax julli juróom daf koy def en mu ne en lu mu ba mu ko leerloo ñu ne ko daal moom julli suba moom mën na ko defee këram ndax xëyagut waaye ci liggéey bi lay nekk ba jant bi sax du am jot bu ko defee bu ñëwee ba nga xam ne reer na ba noppi ba sangu ba tëdd dese ko mu jàpp nag soo ko julli tisbaar julli takkusaan julli timis julli gee buy safa witir def ko bëggul def bàyyi xam ne sonn na mu tëdd nelaw ba mu xëyaat ci liggéey su murtala keroog wax na lu leer nañ nee na ko dangay tànn li la yàlla tànnal ba noppi loo cay teg nga teg ko ca dangay tànn li la yàlla tànnal ba noppi yow loo cay teg nga teg ko ca mu yóbbaale ko kon boog loolu leer nañ la lañ waxi sëñ boobu la leer da leen tànn leen yàlla tànn la ba noppi ci ay pas-pas ak jikko waaye nag maa ngi leen di dénk ngeen moytu loo xam ne da di fital rek jëm ca moo xam muy aada wala ak jaamu yàlla ngeen ko tudde ndax li yàlla tànn dong ci la ci ngeen di amee li ngeen bëgg fii ak faa wa uhadirukum wa uhadirukum an fi'li ma lam yuxtar lakum min al ibadat wal aadat fa innama xtaarahu llahu lakum tabaraka wa taala huwa aljaamiu li saadat wa uusikum waxaat baa mu waat ko ci wax di wax di ko baa mu waat rafetu ca lool waaye fii mulaasama la wax ak an laa tufaariqu ñaari yëf yi bokkut maanaa la mulaasama mooy koo xam ne ku la gis-gis ko ku la gis-gis ko an laa tufaariqu mooy léeg-léeg nga ja nga xaritoog nit ba ko la gis-gis ko léegi-léegi mu gis la te duñ ko gis wa usikum bi an laa tufaariqu maxtira lakum abada mukk bu leen ko moom fa inna mufaraqatahu tajur lakum alaman wa kabada léeg-léeg ñu gis la gis lu baax léeg-léeg ñu gis lu baax te duñ la gis nee na fa mu leen jëmee du baax yàlla ñu ci yàlla musal moo tax bay bi mu wax ba ne nadamaha tarbiyatan wa tarqiya liman taallaqu bihi litasfiya taalluq boobu yi mat naa taxaw de junjoon nañ keroog ne sëñ Modou Lamine Diop Dagana wax na ci irwa un nadim ne bi yataallaqa allazina aslamu ak wajjaha rabbi li gayri man biya taallaqu asan yulaaqi al aqbiya yooyu laaj nañ ko sëñ Modou Lamine Diop Dagana ne ko yéen ñi nga xam ne daje ngeen ak moom jamono day sëñ bi léegi dara mi ngi fi bàyyi ko ci année 60 yi. mu ne fii murid yi muy wax bay wax ña ca aju ñi ca aju si moom dama la xaw ma ba xam ca laa bokkam déet looloo ma tiitloo ba ma tas ak mbind ma ak léegi. daan ne moom ci boppam laaj na ko taalluq nu ñuy ajoo ci yow mu ne ni aw dàll di joggee la muy joggi da cay yem képp. loola du jigéen dàll yu fenn du génn dal yu fenn da cay yem képp mi ngi mel ni ku joggi si ngoom su bari du génn dal bu doxee tuuti rek ba dal yu téye ko rek du du du génn fenn doo xool gis ko xanaa nga jaaxal na dal nee nag loolu mu jogg noonu mu yem ci dal wi su fekkee amut xet day yem ci loxo fu dal yu dugg mën na faa ànd ak moom dugg waaye su amee xet nag gis nañ ko ci nawet bi ba tàyyi nit summi ay dàllam ci bunt bi ñu ne xool leen dàll yi ba xam ndax la ànd dàll yee moo naan saraax ci biir néeg bi bu xaaree xaar waa ji génnul nu ñu koy def xeet ba mu set wécc ñu raxas ko tàggalee ko dàll ba dàll wa jëm fee mu jëm fee nee moo ko tax a tiit moo tax xat-xati jamono ak fitna fitna nag suñu borom nee na woon ci alquran wal fitnatu ashaddu min al qatl am nañu fi ne fitna boobu li mu ci jublu mooy bokkaale yàlla ak lenn ak wal fitnatu akbaru min alqatl loolu it mën na koo firi ashaddu min alqatl akbaru min alqatl waaye li leen firi ñoom ñëpp ak bu mu ca mën doon wattaqu fitnatan la tusibanna alladina minkum xaasa waalamu an allaha shadidul iqaab fitna mooy luy lu lay metti te mënoo koo faj su tàmbalee yaatu ci jamono moom léegi tey nit ñi dee ak li ñuy wax stress te laaloo ca jege woo waaye li war a naqari ñu baax ñi moo lay naqari te bis bu set ngay gis luy dolli ko ca loolu démb la loolu nag li ci mën a musal ñey ñëw ëllëg te ñuy layoo ak ñun lu ñu leen fi bàyyil ñoom ci ndénkaanul sëriñ bi moo jàngal leen xam-xam bañ ne ar ñu yar leen bañ na nër foofu la suñu fa lu yemoon bi muy wax seen digg ak maam Thierno gannaaw bi ñu dolli ci yeenu bañ na jar bu yar yee amee rek yeete yeewu am na jàng bam ne ar jàngal ko ba ne ar lu mu gis xam ko mën koo jàng yar ko bam ne nër lu ne mu mën caa wéy ci am nattu yeewute dikk na ndax day xam yàlla mooy tegge mooy teggee su ko defee kon ñi naan sëriñ bi nekkut ci mbind nañ dem yëri jaalibatul buruur tuuti lañ ci junj tuuti wa daafiatul xuruur juróom-benn fukki bayit ak yat yomb naa mokkal te wayin wu yomb la wayin ko way waykat yi dëgg dañ naan mooy duut gi nga xam ne gone mën na koo war mag mën na koo war góor war góor mën ko war jigéen war koo mar mën koo war wu yomb baat yu yomb yoo xam ne doona lu mu ci jublu kon kat ëllëg ki si biir moom dénkaane na te mi ngi xaar ñu agsi moo la yoog ñoom ak ñun ndax bokk yi feeg yaa ngi xool sa loxo di ko gis di gis jant bi fenk ko sow so yaa ngi dund xamal na bis bañ ci taxawagul waaye balaa taxaw ñun ñëpp ñu dem balaa taxaw ñun ñëpp dañu fay ñee dem feneen dañ fay xaar rek bis de ñëw ñëpp demandoo kon ndénkaan li la sëñ Muntaxa waxoon ba muy teg doju université ba bu mu lal suuf tool bi yaatu na de bari na na ca bay de te ruur mi bari na lool bokk yi def lu la neex wax lu la neex wéeru ko sëriñ bi sëriñ bi bari un menhu bara wala bari laalu ko fenn jutewut ak moom dara ak ku ko ma def fu mu ko mën a defe ndax bin téere bii fi mu toll nii ñi ko gis bariwul ndax bëgguñ koo xool am na ñoo xam ne gis nañ ko waaye bëgguñ ko dañ koy tegaat ndax day wax ak ñoom lu tax duñ jàng yi nga xam ne sëñ bi da wax ak ñoom fës ko jafe ëllëg si biir lii sëriñ bi doon li biig naan suñu blaat ko waxoon ku ne war na caa xool boppam suñu blaat kooku nee na suñu blaat nee na suñu ko wax biig ñëpp dégg mu ne suñu blaat nee na bu si bu yomal xiyaama foofu laa jeexale Euh, ba yàlla ak lim mu bindoon lépp teew day yebal yonent bi sallallahu alayhi ci jaam ni yonent lay jëkke ni yéen yàlla wax na ma seen mbir ci alxuraan xam naa leen bu baax a baax a baax xamee naa leen daal ne yéen saxaaba yi moom yéen maag yéen a fi nekkoon di màcc suñuy buy ak suñuy daqaar muy metti ba ni may ba demee bàyyi leen ko gannaaw bi yëf yi dem na law na ba dem fu nekk ba muy law nag ñam doon jaar ci seen loxo muy jàll nañ leen woo par kenn ñu xool ba xam ñoom lu ñu ca def nee na moom bu ñuy woote ba agsi ci njabootug sëriñ bi kenn sëriñ bi nee na ki koy sagal mu dal limale ci ñoñam nga taalluq ci moom mooy kii muy bëgg a wax ñii muy bëgg a wax bokk sëñ bi doon wax démb nee na ku ne na ci natt boppam ba xam man na saa bokkam déet na bu ñu ne ana sëñ bi dëkkoon jareem te mujj nekk Tuubaa kenn ci njabootam ne ñoo ket di def la gaa yu jëkk yi daan def bu noppee kenn feelu ko ñiy feeloonte ba yàgg ñu ne ana kañ woowoon ñu ne moo ne ñii di ci njabootam lañ bokk sëriñ bi ne ne su boobaa ku bëkkut ci ñooñu defal ko loolu féetewoo ko fenn yaa ne moom nga àndal waaye jutewut ak yow dara yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin